kuréel ngir xeex pour ay élection yu jaar yoon te nga xam ne ñëpp danañ ci mën a bokk loole la opposition bi tànn ngir amal ab coalition bu bees ngir jàkkaarloog régime Macky Sall kii di Mamadou Sy Albert di jàpp ne plateforme bi le nag dafa rek jubbante waat xeex bi nga xam ne ñii di waa F24 indi woon nañ ko te nga xam ne li leen gënoon a soxal mooy xeex troisième candidature bu Macky Sall. ñoom leen tax a jóg mooy dañu bëgg ñëpp participer ku candidature ñu mën na bàyyi nga participer bon loolu nag am na solo pour euh, opposition bi yëpp beneen euh, objectif bi ñuy xool mooy transparence que élection bi jaar yoon loolu aussi parti politique yëpp euh, war nañu ànd ci tànk boobu. loolee waral mu jàpp ne comprendrewul benn yoon li tax ñu bëgg ci beddi taxaw bu Khalifa Sall ak PDS. mënoo wax. que da nga bugg élection ñëpp bokk commencé guloo sax da ngay dàq PDS nga dàq Khalifa Sall waaw loolu moom euh, mënuñu ko dégg PDS jàgg na fii am na expérience Khalifa naka noonu mais ñooñu mën dañu bokk ci opposition da nga leen waroon boole loolu nag lu muy wane mooy que euh, dëgg-dëgg bi du baax discours bi pour nit ñi euh, ànd ci day jafe beneen obstacle bi nga xam ne plateforme bi nar nañ ci jàmmarloo muy situation bi am ca Sénat nga xam ne faaw rek ñu toog ngir xoolaat dossier yi. Sénat bu bees bi toogagul il faut mu toog jéem a xool moom tamit naka la war a taxawee fii ak euh, élection présidentielle. donc euh, opposition bi soo moytul dinañu xaar lu yàgg euh, lu des ci élection bi dafa bariwul 26 décembre la ñu war a déposer. temps timing bii daal arrangé wul opposition bi. plateforme bi ñu duppee fit nag xeex bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi ko doon xaarandi ndax processus électoral bi bëri na ñu koy critiquer ci biir réew mi waaye nag nañ ca nar a duggee su moytuwul moo nar a yàq combat bi ndax itam organe bi nga xam ne ci moomee la ñu waroon a sukkandiku ci xeex bi dafa am ay changement yu bëri yu fa am.